Ah, buntu ba sunu wasila buntu bi ni aw moy kon tambale ci wasila nga xamni moy don sunu waxtanu tay ndax ñun jam ni kat sunu borom subhanahu wa taala mo nu bokk bind ñun ñep wàcc ñu ci aduna yit nak digal nu ak jaamu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbuduni jele gi mu jele ci bopam ci ciosan wàcce ñu ci aduna jaamu gu yep aw yoon la ñuy tëralal wunu ci mom mom sunu borom yalla nu digal ñun jaam ñi nañu yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila wa jaahidu fi sabilihi laxallakum tuflihun ee yéen ñi nga xam ni gëm ngeen ma wasila nag ba ko sunu borom di diggal waxut ayyuhan naasu ndax bu noon ay naasu ee nit ñi bu boobaa ah, danga wax ni kon ñi ñi tuubagut mën naa am ñoom lay wax waye sunu borom yaayu la si ne amanu la waxal moy ñi nga xam ne gëm nañu ba nop ba doon ay julit ba nop ñoñe la wut lo wasila ngir ñu japp ci mom del wat ci mom sunu borom yegg ci mom yalla kon wasila mbirum julit ñi la ñi nga xam ne gëm nañu ba nop kon l'islam plus lolo tuddu wasila yaayu la si ne amanu yéen ñi nga xam ne ngeen sunu borom yalla ne ittaqullaha ragal leen man yalla wa taqwa ilal wasila tasakku ab wasila bu ngeen wëru ngir yegsiwaat ci man sunu borom mi ngeen nga xamni kon fofu rek li ngay njëkk dig dégg bi moy amul maqama mu nit mëna am kon ba mëna yegg fofu may nako ko am wasila loolu ta am ndax ayyuhal yaa ayyuhallazina am lo sun borom diko wax na ñew muy ñiko gëm sartu iman ak nin ko jang li yépp boko bolé ba ag ci ulaayka humul mu'minu haqqan ñoo ñoo ñoo étape bu ñëk bi sunu borom weesu loolu ne ittaqullah xam nga ni na muy julli ñi ñoo gën ci nit ñi waaye ci biir jullit ñi rek ñett ca gën mooy ña ña amuk ragal yàlla inna akramakum xindallaahi atqaakum moo tax yàlla ni allahu waliyul mutaqin ginnaaw ba mu jiitalee allahu waliyul muminin léegi ñi ragal yàlla nekkaat beneen groupe ci biir almuminoona ñooñee la yàlla seppi ne leen yéen ñii nga xam ne weesu ngeen wala xad karramnaa bani aadama muy nit a gën ci lu ma bind ngeen bokk ci ma tànnaat ci biir nit tànn almuminoona ñu gën ci biir nit ñi ngeen bokk ci ndax allahu waliyul muminin ci al almuminuna mataan naan ñi ci gën muy ñi nga xamni ñoy al mutaqin ngeen bok ci yeen la wax ni sakku len wasila bu andi war ci man kon maqaama mom fa ko sun borom tek digal ñoña ñu wut wasila mo lay xamal ni kon suta am maqama mu reey reey ba yóbbu ci nga japp ne am wasila kon wasila ñëpp la wax ci al qur'an da nga deg mu naan wattabi sabila man anaaba ilayya thumma ilayya marjihukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun yéen ñi nga xam ni booba da doon soññee ci ñaari wayjur topp gi neen war a topp rafetal ki seen diggante